dañuy sant yàlla gannaaw bi nga xamee ne def nañ lu ëpp une semaine jëm nag ci njeexitalu campagne bi euh, sant yàlla gannaaw bi nga xamee ne campagne bi ñu ngi koy def ci jàmm ci li ci ëpp wax dëgg yàlla ci biir réew mi ñu ngi jàkkaarloog askan wi euh, ñi bëgg a nekk maire di proposer askan wi seeni programme ñu di ko waxtaanee war a jëm nag ci jongante bi nga xam ne mooy am ci bésu élection yi le 23 janvier waaye nag ñun ah ñu ngi rafet njot di dolli am yaakaar ne incha allah yàlla dinañu may ndam li ndax itam ñi ñu àndal yépp ñi ngi dem ci daje bi ak askan wi di leen wan programme yi nga xam ne moom lañ am di ko inspiré nag ci coalition benn Bokk Yaakaar ak vision président de la République bi nga xam ne mooy le plan Sénégal émergent loolu yaakaar nañ ne dina dal xelu askan wi ñuy wax nag ñëpp bu ñu tontuwante kenn bu ñu dugg ci benn fitna li ñuy laaj mooy ñi nga xam ne ñoo bëgg a jiite communes yi ak département yi ñu dem seeti askan wi wax ak ñoom jox leen seen i programme ak seen i vision waaye wax dëgg yàlla te ca taluñu teesante kenn taluñu xuloog kenn ñu deuxième vague taluñu xuloog xeex wax ci kay li ñu laaj mooy askan wi ku am proposition boo ko mun a jox ci li nga xam ne moom lañ woote muy élection boo xam ne élection locale la ñu dem ci ku ci am proposition ku ci amul proposition nag am yeneen i problème yoo war a feneen waaye rek waaye bul jël askan wi en otage ah defoon nañ ko fi mars dernier nga xam ne mbir mi mbirum euh, lu kenn xamul la woon jotewuloon dara ak nit ñi ñu foye xelu nit ñi ba mu am ci ay bakkan yu rot loolu nag suñ ko bëggee bañ bu ñu nang kenn jaxase suñu xel wax ji wax ju yomb la ku bëgg a tànn maire nga xool programme bi ñuy proposé nga joxe ci sa proposition waaye ñu di la wax waxu mairie ngay wax waxu leneen feneen loola mooy wane irresponsabilité bi nekk ci yenn politique yi ñuy woo sénégalais yi ñu jublu sur l' essentiel l' essentiel mooy ñu déglu programme yi ñun wóolu nañ sunu bopp wóolu nañ suñu bopp ci suñu programme ndax programme yii nga xam ne moo nekk ci collectivité locale yëpp dañoo adossé wu ci li ci ëpp ci acte trois de la décentralisation adossé wu aussi sur le plan Sénégal émergent bu majorité Benno Bokk Yaakaar ak le président de la République dans sa vision moo tax ñu am njott ne sénégalais yi incha allah dinañ wóoluwaat les listes Benno Bokk Yaakaar ci téeméer ak juróom benn fukk ak lu topp yi nga xam ne ñooy collectivité territoriale yi nekk ci réew mi liggéey bokkul ak waxu caaxaan collectivité territoriale boo dem di nga fa fekk coalition Benno Bokk Yaakaar mu am proposition bu muy jox askan wi di seeti askan wi nag bunt ak bunt këroo kër pour waxtaan ak ñoom loolu mooy li nga xam ne mooy liggéey bi loolu mooy li nga xam ne tamit moo tax ñu am yaakaar bu fort ne incha allahu rabbi dinañ am ndam li le 23 janvier ndax ñun li ñu li ñu wóolu mooy askan wi wax ak askan wi proposer leen ay gis-gis ci ni ñu mën a def ba améliorer seen dundin def ko au niveau national muy la coalition benn Bokk Yaakaar dans la vision d'ici 2035 def ko aussi dans les exécutifs locaux nga xam ne dañuy inspiré wu ci gis-gis bi nga xam ne mooy gis su président au niveau macro ñu implémenté ko au niveau micro fu demee ni Casamance kenn mënul naatable lañ fa def kenn mënul naatable le pont de la Sénégambie kenn mënul naatable la boucle du Boundou la boucle du budget kenn mënul naatable investissement yi nga xam ne def nañ ko ci bateau bi nga xam ne douze mille cinq cent ak quatorze mille la doon jaar pour nga paas ci tey junni lay jaar naka noonu naka noonu naka noonu gox boo jël ci réew mi impact politique u public u état dafa am ba nga xam ne exécutif ko yi pour ñu continuer ko dina yomb parce que ci base boobu la ñuy mën a continuer li nga xam ne mooy la le prolongement au niveau local de la vision nationale et globale du développement du Sénégal à travers le plan Sénégal émergent.